lii nga di ko def ci dëkk bi mag ñu baax ñu tëdd dëkk bu mel ni Sénégal lii nga di ko def ci dëkk bi nga xam ne nii dañ na quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ay jullit lañu. lii nga di ko def pare ëlbate ko oser filmer ko publier ko xëy le matin jàkkaarloog sa yaay ak sa papa. ti ko yaay nit ku bon ti ko yow yaa xamadi te yëpp sénégalais yi bu ñu waxee nga ne sa liggéey nga nekk lii métier la ti ko xaw ma ti ko yow est-ce que xam nga ne ñun ñu ngi Europe. est-ce que xam nga ne ñun ñu ngi xool li nekk Amérique est-ce que xam nga ne gis nañ ki nga xam ne mooy tatoué Beyoncé di tatoué Rihanna di tatoué Nicki Minaj Baby K ñiy tatoué li ñi nga xam ne nii presque ñoo téye monde bi ci wàllu bon du ma ne lu baax de ci wàllu mbon ñi nga xam ne dañoo ànd ak ay saytaan ñi nga xam ne buñ ne nii réseaux sociaux yi di màbb ñu di leen suivre ñun matin midi soir mosuma gis seen tatu ki leen di tatuyee ñoom bu ñu amee sax podium mu osé filmer leen juutal leen di tatuyee seeni nuuru buuj ngeen jégal ma ci kàddu gi xam nga ne geste yi salte trop pare osé publier ko <laughs> non non gisaguma ko Europe de man baara ak lu may bañ bañ kumpa lu may sop sop ak mën a lijjanti gisaguma man image yu mel nii biir Europe muy circuler déedéet. Mm-hmm. te bu ñu waxee ñu ne senegal maanaam kàddu askan waa nga fa waa yaanaa maara nga fa waa waa jamra nga fa ku def loo deful ñu jël dal ci sa kaw ani waa jamra dans tout yow an say kilifa sax avant jamra di jóg yow ko mais lu bon ku koy siiwal di ko fësal ku bon nga yow ci sa liggéey nga nekk nit bu ñëwee maanaam paan kilifa comme yow juutu na ko ndayam juree woon defal ma fu ko neex am na ci droit yow am nga ci droit mais loo ciy publier lan nga ciy filmer di ko publier ay vues nga bëgg ay commentaire nga bëgg maanaam demoon nga ba nga xam ne kenn waxatul say wax nit ñi fàtt nañ la nga xam ne Sénégal population bi maanaam majeure partie bi maanaam foo am taat la ñu bëgg kuy wax ci lu bon la ñu bëgg kuy yàq nit la ñu bëgg kuy wax lu bon la ñu bëgg nga ne xaaral ma ñëwaat nuqati samay bagage nànk tegalaal leen ko ci terrain bi daal di demaat continuer sama liggéey ma majeure partie bi maanaam xale yi ci internet bi yëpp lii moo leen ñor foom taat gis naa image yi nag Instagram ak Facebook ñu ci bëri taakale wuñ la de xam nga lu ñuy def ñoom épisode riide lañ ko lañ ko jàppee maanaam di italien naan riide rek di ree ñëpp a ngi ree xale bu jigéen bi moom je n'en parle même pas moom moom moom moom moom moom aw ay aw ma pour moom moom baax na ni mu def baax na ni nga ko bëggee billaahi wallaahi wa taalaahi balaa nag yàlla sunu borom am naa lu ma naqari trop